ñi ngi tàmbali waxtaan wi lii sëriñ Mbaye Gueye waxoon nag loolu rek manees na koo ubbee ndax sëriñ bi en 1949 bi la gouverneur général Paul Béchard ni woon sëriñ Moda Balla maay inauguré si forage bi Sénégal gépp ñoo yaakaaroon ni mënut a nekk. bañ ko waxee Cheikh Mamadou Basir moo tontul sëriñ bi moo moo tontul sëriñ bi sëriñ Basiru waaye moo tontul tubaab bi itam ndax daf ni loolu mën a nekk la ndax gouverneur général ñëwoon na Tindodi seet si Cheikh Modou Moustapha kon bu dee danaa ñëw daarum si fekk sëriñ a Aballa kon loolu xel war na koo mën a nangu wala ñu xamoon ni jotaay bii war naa mën a nekk waaye sëriñ bi sarak ju baax ji bu wuy si woon moom dong rek doy na la lépp waaye doy na Idrissa lépp waaye sëriñ bi ni nga toll ci sëriñ Fallou toll ko ci sëriñ Mamadou Lamine Bara jëmm ji toog ñu tudde ko sëriñ Fallou Galas Kaltoom bu ñëwoon wuy si rek doy na lépp waaye nag bala ñoo dugg ci waxtaan wi mani laa sëriñ Moussa Nawel yebal na sëriñ Modou Mbacke ma nga ne bu nee na fu ñu nekk rek wala lu ko ñor lu nekk da koy booleeg ñoom waaye bokk yi wuy si nañu na ko waxee woon dëkkandoo yi si wuy si nañu na nga ko waxee woon ñi la sopp ñëpp wuy si nañu ca na ko waxee woon. jërëjëf. ginnaaw bokk yeeg sopp yeeg taalibe yi ña nekkoon ci leneen te moom mii muy njiitu leneen. ñoom ñëpp fa tubaarakalaaw bàyyi woon nañ lañu fa nekkoon ñëw fii mën naa cee lim troisième adjoint au maire Pape Fafal moom nee na loo nekk ma nga ca mën naa cee lim mën naa cee lim Serigne Diop moom Cheikh Fatma ki nekkoon chef de cabinet APD moom it fa tubaarakalaaw mi ngi ci jotaay bi mën naa cee lim conseil municipal yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi ñoom it fa tubaarakalaaw ñoom ñëpp ñëw nañ. Thierno mbay ñëwoon na te bu nekkee conseiller grâce à Idrissa parce que ñum ñoo ko fal ñoo ngi mut Diop Jale moom it fa tubaarakalaawu ñëw na Assane Diakhaté sa mbokk di sa taalibe moom jiite parti moom it nee na nee ñëw na loo nekk ma ak mboolem politiciens yi nga xamante ni fa tubaarakalaawu Mbaye Ndiaye moom it fa tubaarakalaawu Mbaye Ndiaye man ndooy woote na fi moom it dafa nekk Suisse moom daal fa tubaarakalaawu naar saw naar saw conseil municipal moom it ñëw nañu Pape Birima ci bokk ci réew mi moom it fa tubaarakalaaw ñëw nañu ñooñu nag damaa bëggoon sol fekkente ni may nga nu ko ñoom ñu jéem leen a dugal fii su ko defee bu Idrissa noppee su ko defee ñu ñu nuyoolee leen ñoom. di ci boole suñu ziyaar. nee na di ci boole suñu ziyaar. di ci boole nuyoo délégation bi ñu àndal yëpp. nee na di ci boole nuyoo délégation bi ñu àndal ñëpp. ko jébal suñu sëriñ suñu kilifa suñu wóllëre sëriñ Modou Kara Mbacké nee na di ko di jël nuyoo boobu di ko jébbal sunu kilifa sunu sëriñ sunu wëllëre sëriñ Modou Awa Balla moom Cheikh Abdou Khoudous di ko ñaan mu jottalil ñu ko njaboot gi teew yëpp ak bokki taalibe yëpp ginnaaw bu ñu musloo ci seytaane. nee na ginnaaw bu ñu musloo ci seytaane. dañuy sant sunu boroom bu baax a baax a baax ci jataay bii mu ñu defal. nee na dañuy sant sunu borom bu baax a baax a baax ci jataay bii nga xamante ni moom lañ la defal. di julli ci yonentam bu tedd bi muhammad alayhi salaatu wassalaam mi sëriñ Tuuba wax loolu nga wax léegi ne ko antal karim nee na du julli nag ca sangub sang bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi Serigne Touba wax bayit yooyu nga xamante ni moom laa doon jéem a junj léegi muy antal karimu. di sant Serigne Touba moomu. nee na di sant Serigne Touba moomu nag. mi wax ni annal xadiimu. mi nga xamante ni moo ni annal xadiimu. dama am sama benn xarit. nee na dama am sama benn xarit. ñoo jàngandoo ci benn école ca France. nee na ñoo jàngandoo ci benn école ca France. nekkoon na ministre de finance ca Mauritanie. nee na neewoon na ministre des finances ca Mauritanie. bokk ci famille yu Cheikh Sidiya. nee na bokk ci famille yu Cheikh Sidiya. ñu toog ak ay shérif. nee na ñu toog ak ay shérif. yu askanoo ci yonent bi alayhi salaatu wa nee na yu askanoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. na seen waajur ne leen. nee na seen waajur ni leen. mbaa yéen xàmmee ngeen seen place bu ngeen demee ci seen kër maam xaadimu rasul. mu ni leen mbaa yéen xàmmee ngeen seen place bu ngeen demee ca kër seen maam xaadimu rasul. bu ngeen fa eggee. mu ni ko bu ngeen fa yeggee. da di seet fa dàll ya di tege. nee na da ngeen di seet fa dàll ya di tege. ngeen wàqi ba mu gën a suufe loola. nee na ngeen wàqi ba mu gën a suufe loolee. ngeen toog fa. nee na ngeen toog fa. ngir delloo ko ko njukkal. nee na ngir delloo ko ko njukkal. li mu defal rasulullahi seen nee na li mu defal rasulullahi seen maam. kon kooku. nee na kon kooku. yàlla baaxee. nee na ku yàlla baaxe nga nekk nee na nga nekk taalibeem. ñëw ziyaare si sa sëriñ. nee na ñëw ziyaare si sa sëriñ. mu woo ñi mu war a woo. nee na mu woo ñi mu war a woo. ndax ba may jóg. nee na ndax ba may jóg. dëgg yàlla. nee na wax dëgg yàlla. ñëwoon. nee tàllal ko sama loxo yii. nee na ñëwoon tàllal ko sama loxo yii. ñaanal nee na mu ñaanal ma. digal ma. nee na digal ma. ma dellu. nee na ma dellu. rek laa ci doon sàkku. nee na rekk laa ci doon sàkku. nee na wante cofeel. nee na moo jur lii lépp. nee na ñu koy sant bu baax a baax a baax. di ko gërëm bu baax a baax a baax. nee na di ko gërëm bu baax a baax a baax. li Mbaye Gueye si la doon junj léegi. nee na li Mbaye Gueye si la doon junj léegi. duma ci ñëw. nee na duma ci ñëw. ndax dafa am loo xam ni. nee na dafa am loo xam ni. ki ko moom. nee na ki ko moom. nee na di xaadimu rasul. moo koy sàmmal boppam. nee na moo koy sàmmal boppam. kenn amul kàttan. nee na kenn amul kàttan. xajamal ko. nee na xajamal ko. nee na loolu nee na moo ñu doy sécurité nee na ci suñu diggante nee na ak sëriñ Modou nee na sunu cant daal nee na am nag tàmbali nee na waaye amul fu mu yem nee na mbokkam mu baax ma nee na sëriñ Moussa Mbacke naawel bari lu ma xam ci sëriñ bi ko nee na nga xam ne lu bari lu ma xam ci sëriñ Tuubaa moo ma ko sax. ci diirub lu ëpp fukki at ak lu topp. nee na ci diirub lu ëpp fukki at ak lu topp. te daf may joxoñ mbindum sëriñ bi. nee na ca daf may joxoñ mbindum sëriñ bi. na ma jàngalal sa bopp. ni ma jàngalal sa bopp. comme fer nee na comme fer nga ijji. di ma ñaanal. nee na di ma ñaanal. gindiku. nee na gindiku. ci sëriñ nee na ci sëriñ bi. ba nga xamee ni. nee na ba nga xamee ni. ña ngay tàmbali. nee na ña ngay tàmbali. deqale la ma njëkk a nee na deqale la ma njëkk a yóbbu. fii mooy sa bàmmeelu maam Mor Anta Sali. ni ko fii kat mooy sa bàmmeelu maam Mor Anta Sali. fii bàmmeelu Lat nee na fii mooy bàmmeelu Lat Joor. kii nekkaloon yàlla. nee na kii moo nekkaloon yàlla. kii toppoon àddina. nee na kii moo toppoon àddina. jàngatalal sa bopp. nee mu ne ko nag jàngatalal sa bopp. nee na ñu jóge fa mu yóbbu ma naawel. nee na ñu jóge naawel. nee mu yóbbu ma poroxaan. na mu yóbbu ma poroxaan. nee na ñu jóge fa mu yóbbu ma njaareem nee na ñu jóge fa mu yóbbu ma bustaan mbàkke kajoor nee na bërëb yépp daal nee na ak mbind yëpp daal nee na mu ma koy sax nee na ba may jóg nee na tournée bii nee na mu tàbbal ci ñaanam nee na yebal ma ca sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke yàlla ko sa borom dolli leer nee na ma sàkku ci ndigalam ak ñaanam. dox doxinu taalibe rek. nee na dox doxinu taalibe rek. nemmeeku rek. nee na nemmeeku rek. déglu rek. nee na déglu rek. saafonteeg askan wi nee na saafonteeg askan wi rek. moo nee na moo ma yëkkati. wante daf caa teg ne ma. nee na waaye def caa teg ni ma. loo gën di dox. nee na loo gën di dox. di gën di gindiku. nee na di gën di gindiku. ma xam ni nag. nee na ma xam ni nag. la mbokkum taalibe waxoon. nee na la ma mbokkum taalibe ma waxoon. moo nee na moo dikk. daf ni ma nee na daf ma ni. Serigne Touba Serigne Touba. yàlla daf koo sedd ñaar. nee na yàlla daf ko sédde ñaar. yàlla na tis ci yow. nee na yàlla na tis ci yow. mu ne ma loo rëy rëy rëy xel. nee na mu ne ko loo rëy rëy xel. mënoo nax Serigne Touba. nee na mënoo nax Serigne Touba. wante loo dofe dofe dofe. nee na waaye loo dofe dofe dofe dofe dofe. Serigne Touba du la nax. nee na Serigne Touba du la nax. li lay jariñ. nee na li lay jariñ. ci mbiram nee na ci mbiram. du wax. nee na du li nit du ñiy wax. wala lu ñu nee na wala lu ñu jort. la sax ca sa xol. la sax ca sa xol. te cay dëgg. nee na te cay dëgg. te mënoo ko nee na te mënoo ko koo nëbb. loola lay jariñ. nee na loola moo lay jariñ. bu nee na bu dul dëgg. loola wàññi. nee na loola moo lay wàññi. wommatu googu nag. nee na wommatu googu nag. nee na moo ma indi fii ci kanam sëñ Modou. nee na ma ko samay loxo. nee na sàkku ñaanam nee na diggante boobu nee na ma wax fa mu bàyyi ko nee fa mu jaar nee na ba yàlla defal ma ci sutura nee na benn cat bañ cee tàbbi ne nee na ñoo koy sàkku ci sëriñ bi nee na am nañu ci yaakaar nee na di santaat bu baax a baax a baax yéene yi wane na nee na yaatuwaayu jotaay bi wane na ko. ndax ziar bu ñu ne ziaru la. nee na ndax ziar bu ñu ni ziaru taalibe la. bu mujjee xeetoo nii. nee na mujjee xeetoo nii. cofeel daf cee tàbbi. nee na cofeel daf caa tàbbi. yéene daf cee tàbbi. nee na yéene daf caa tàbbi. loolu nag. nee na loolu nag. amuñu payam. nee na amuñu payam. kon dañ koy booleeg ñi nga xam ni. nee kon dañ koy booleeg ñi nga xam ni. yaakaar nañu ni. seenug seenug pay. nee na mën na koo bégloo nee tamuy te muy maam Thierno nee na di Serigne Touba di Mouhamed alayhi salaatu wa salaam nee na ak borom bi ñu boole moom nee na ñooñu la ñuy sàkku ci ñoom nee na ñu defal ko mbégte nee na mu kawe nee na mi mu jëmbat ci sunu xol nee na ci bëccëgu tey allahumma salli ala sayyidina muhammad jërëjëf kàddu yooyu li wolof di wax rek. ñu ñu wisi la dafa jafe ak loo nekk ñu nekk ci ak yow dafa jafe. nee na kon sant naa leen yéen ñëpp. nee na ku ci nekk nag mënumaa jaar ci saw tur. nee na waaye lii Touba ak Darou Mouhty ak Taïf ak fu waay mën a jóge. sar saara ak fu man doon. nee na fu nekk daal ak Darou Rahman fu nekk daal nit bàyyi ko na fi. nee na fu ma tudd ak fu ma tuddul. nee na li ciy dolliku nag mooy sama digganteeg sama gan gii. nee na moom laa leen bëgg a seereel. nee na moom yàllaa koy door dugal ci kër gi tey jii. nee na waaye yàgg na koo bëgg. nee na bu ma jumul daal. ñetti gàmmoy Tiwaawan. nee na su ma juumul daal war naa doon ñetti gàmmay Tiwaawan nee na waaye moom moom daal moom mii nee na war naa toll ci at ak genn wàll nee na ma laajte mu laajte mëndooy mi nga xamante ni moom laa wax léegi ni la dafa nekk Suisse waaye téléphoné na nee na mu ne ko fexeel ba ma am numéro sëriñ Modou ni mu ni ko président Idrissa sekk day nee na dafa bëgg sa numéro nee na ma ni ko loolu day bu ko bëggee dana jàpp ni nee na ma daal di ko koy jox nee na defoon naa ne du gaaw woote waaye yeggul dara mu daal di woote ndax ñor gum ko ñor nee na ba mu woote mu daal di ci man ma daal di koy wuyu nee na moom sax dafa defee woon noonu ni bu wootee keneen keneen lay jaar door a egsi ci moom. nee na ni mu waxee rek laa laa defe ni laa la moom mii defe woon ni ni du moom du sëriñ bi. Ah, mu ni ko man la de. mu ni ko man la Idrissa ma ne ko waawaaw. Ah, mu ni ko dey. dama lay dégg rek. nee na ca sunub gisee bariwut mu ne ko man dey sunub gisee bëriwut waaye benn yoon laa takke yow day yaakaar nga ni la nga loola bëriwut waaye loola man bari na ci man nee na mooy bi sëriñ Abdou Khoudous nelawee nee na bis booba nii ma tooge nii nee na mi ngi toog ci saawet nii nee na Ablaye Wade tooge nii nee na mu seq leen ñoom ñett nee na sëriñ Basiiru rakkam ci tooge nii nee na sama rakk yii ci des tooge ne nee na loolu moom. moo tax moo tax mën naa bari na ci man. nee na looloo tax yoon wii kat moom mu jàpp ni bari na ci moom. léegi nag bu loolu nag loolu nag bu loolu amee. mu daal dama day dama bëggoon bu fekkente ne nga ma nee na mu ni ko damaa bëggoon day su fekkente ni nangul nga ma ko. maa ngi lay ñaan. nee na maa ngi lay ñaan. damaa bëgg fasante wëllëre. nee na damaa bëgg a fasanteeg yow wëllëre. te li may wax itam. nee na te li may wax itam. nee na penku laa jublu nee na ñaari malaaka yi ñu ngi sangam ci mbagam nee na dara lu may wax lu dul dëgg du ma ko wax nee na kii moom nee na at ak genn wàll am na ko nee na nii la ma ko waxee nee na ci téléphone bi nee na ma ne ko nee na mi ngi nii su fekkente ne li ma wax amut na ma ko wax nee na mu ni ko am mu ni ko man day am na ku taxaw guddi ni ko ni ko ubbil Idrissa mi bunt bi ubbil ko bunt bi nee na wóor na yàlla nee na yàlla dong laa koy seereel nee na danaa laloo sama ndijoor bii nee na jar dara lu ma jaral wax lu dul loo xamante ni nekkul amul nee na ma ni nii nii rek gisuma kenn nee na gisuma ko taxaw nee na ma ne ko kon yàgg yàgg yàgg Idrissa di nga ñëw fii nee na bukki wiiri wiiri jaari ndéeri nee na loolu laa xam booba. léegi nag moom. nee na léegi nag moom. jàpp naa ci moom loo xam ne. nee na jàpp naa ci moom loo xam ni. nan dem nan dem rek. nee na nan dem rek. yàlla bàyyi nu nee na yàlla bàyyi nu fi rek. ñaan gi fii laa fii fii fii. na ñaan gi fii. la ko defal fii. danaa la ko defal fii. da nga ko yóbbaale. da ko yóbbaale. da nga ko di ko def itam. da ko bàyyi fii ma ko def it. ndax man ma dénk sa bopp ku ne. nee ndax man ku ma dénk sa bopp ku ne. du ma la sàggane. nee na du ma la sàggane. ndax. nee na ndax. buntu kër yi bari na nee na buntu kër yi bari na bari na foo mën dem nee na fi nga weesu bari na foo mën a dem ñëw fi man mii nee na ñëw fi man mii te dara nee na te duma dara loolu dafa rëy ci man nee na loolu dafa rëy man ba ma jëkkee woo téléphone rek nee na ba ma jëkkee woo téléphone rek loolu moo jëkk rëy man nee na loolu moo jëkk rëy ci man sëriñ Basiru Jóob mee nee na sëriñ ko téléphone ne nee na woo ko téléphone ni ko su ma na su ma sañoon day nga seet nga seet sëriñ nee na nga seet sëriñ Moodu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 waaw wawu nasila wanu nasila wawu nasila min alqurani min alqurani waaw wa sifaamu fawu asikum moom mën na ko bu ngeen ko dégloo rek dana ko leeral de moom mën na ko waaw man mii nee na bu ko waxee danaa ko xam wawu nasila min alqurani min alqurani maawu maawu wa sifaamu nee na wàcc nañ alquran muy saafara nee na moom nag. fu ñu ko bindee. nee na fu ñu ko nee na fu ñu bindee woon na sil boobu. nee na ak fi mu nekk moomu Idrissa ca Kaamil ba. nee na boo ko seetee. nee na du mat isib. ndax dafa ne. wa kaana yaamuru ahlahu bis-salaati was-zakaati wa inda rabbi marlan waskuru fi kitaab Idrissa wax na ko ñaari yoon sax mhm. dana waskuru fi kitaab Ibrahima mhm. wax ne waskuru boo seetee fa wan nu sami na xaraa mm-hmm. ak fi ñu euh, mm-hmm. dafa dafa jege waaw ñaar yooyu woo woo ca Mariama la nekk ca la nekk ah, waaye dafa soriwut ak aw turam nee na dafa soriwut ak fi Idrissa mii nekk lépp matul isib nee na lépp matul isib mm. kon nag nee na kon nag ginnaaw mooy mooy ñaanukaay nee na ginnaaw alxuraan mooy ñaanukaay bi nee na danaa ko jox ñaanukaay bi mu ñaan ma ñaan nee na danaa ko ñaanal nee na nit ki nag am nay bëgg-bëgg am nay bëgg-bëgg nee na du benn du ñaar nee na loola nag nee na bu ma ko joxee kaamil bi nee na mu fas ci la mu bëgg rek loolu rek la bu ñu nee na li ci des nag ginnaaw tudd naa fi sëriñ Abdou Khoudoss ni boobu la fi nee na ginnaaw tudd naa fi sëriñ Abdou Khoudoss ni boobu la fi ñëwoon. te kii moo yor kàddu sëriñ bi. nee na te kii moo yor kàddu sëriñ bi. muy man mii nee na muy man mii. Hmm, jox mi sant ma sëriñ bi lu ma bëgg a wax lu ne daal. nee na lu ma bëgg a wax lu rek dëkk daal. nee na mënu ko wax ndax kontante. nee na daal fu sant yegg daal. nee na Idrissa na nga xam ni sant yegg na fa. nee na jàpp na la itam nag nee na tam moom xam nga ni bu jàppee du la bàyyi nee na kóllëre gii nga jàpp ci moom nee na jàpp na ko nee na te da nga ko xamit nee na man nag sama xam ci man nee na mooy ñaan rek nee na yàlla mi nga xamante ni mooy yasirul asir nee na mooy yombal la lu jafe nee na lu la jafe woon lu nekk la yàlla na la yomb mbokk yi mbokk yi sëriñ Basiiru nee na asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu maa ngi nuyu mbooleem ñi ci barab bi. nee na maa ngi nuyu mbooleem ñi teew ci barab bi. ci turu sëriñ bi sëriñ Modou. nee na ci turu sëriñ bi sëriñ Modou. Mm, yow wax nga léegi ne. man mi ci bopp wax naa ni léegi nii. yor mm, naa yeneen i kaddu. nee yor naa yeneeni i kaddu. sëriñ Gal Gallas Kaltoum am lu mu ci teg. nee na Serigne Gallas Kaltoum am lu mu ci teg. waaye kaddug Serigne Modou laa waxe nee na waaye kaddug Serigne Modou laa waxe mooy santal ko. mooy santal ko. ñi ko wuy ci wooteem bi ñëpp. na ñi ko wuy ci wooteem bi ñëpp. fedd li cant gim leen sant. nee na fedd cant gim leen sant. ndax. nee na ndax. fii ci kër sëriñ Abdou Khoudous. nee na fii ci kër sëriñ Abdou Khoudous kër sëriñ Abdou Khoudous. ni mu ko waxee moom mii. nee na ni mu ko waxee moom sëñ Modou mii. mooy lépp sëriñ Abdou nee na mooy lépp sëriñ Abdou Khoudous. te mu doy nu ko nag. nee na te mu doy nu ko nag. ci wet yëpp nag. nee na ci wet yëpp nag. danga am kilifa ci sa biir kër. nee na da am kilifa ci sa biir kër. bu sëñ Modou nekkee sunu kilifa ci kër sëriñ Abdou Khoudous. nee na bu sëriñ Modou nekkee sunu kilifa ci kër sëriñ Abdou Khoudous. muy man muy Moustapha nee na muy man mii ak Moustapha mii ak ñi ma ko bokkal. kenn ku ci ne am nga ñoo yilif ci sa nee na kenn ku nekk am na ñoo ci sa biir kër. kilifteef mënut a ñàkk. nee na ca kilifteef mënut a ñàkk. kon sëñ Modou mooy sunu kilifa ci kër sëriñ Abdou nee na kon sëriñ Modou mooy sunu kilifa ci kër sëriñ Abdou Khoudous. mbay nag ci sa tànk. nee na mbay nag ci sa tànk. buñ fi jógee. nee na bu ñu fi jógee. ci kër borom daaru. nee na ci kër borom daaru. Serigne Abbas mooy sunu kilifa. nee na Serigne Abbas mooy sunu kilifa. mboolem ko aju ci borom daaru. nee na mboolem ko aju borom daaru. bu ñu duggee ci yoonu Mouride. nee na bu ñu duggee ci yoonu Mouride. képp yaakaar Serigne Touba. nee na képp ku yaakaar Serigne Touba. ci jamono yii ñu nekk. nee na ci jamono yii ñu nekk. Serigne Mountakha. nee na Serigne Mountakha. mooy sa kilifa. nee na mooy sa kilifa. kon jataayu kër sëriñ Abdou Khoudous la ñu nekk. nee na kon jataayu kër sëriñ Abdou Khoudous la ñu nekk. Mm, sëriñ Modou woote. nee na sëriñ Modou woote. di am gan. nee na di am gan. te nam ko waxee ñëpp dégg nañ ko. nee na tam nam ko waxee ñëpp dégg nañ ko. kon nag. nee na kon nag. sëriñ bi wuy si nañu la. nee na sëriñ bi wuy si nañu la. te weetuñu ci itam nag. nee na te weetuñu ci itam nag. te ñaan yàlla sunu borom. nee na tey ñaan yàlla sunu borom. loolu nga wax. nee na loolu ñu wax. am na ku ko wax léegi. nee na am na ku ko wax léegi. jàpp naa ne yow mii la. nee na jàpp naa ni man mii la. sëriñ Abdou Khoudous moo ko daan wax. nee na sëriñ Abdou Khoudous moo ko daan wax. ne ci sëriñ Touba la bàyyi ko. nee ci sëriñ Touba la bàyyi ko. sëriñ Touba moo daan wax ne. nee na sëriñ Touba moo daan wax ni. su ma ko lëranteeg nit. nee na su ma ko lëranteeg nit. bu kooka bàyyee it man du ma nee na bu kooka bàyyee it man du ma bàyyi. foofu la ko sëriñ Abdou Khoudous jëlee woon. nee na foofu la ko sëriñ Abdou Khoudous jëlee woon. ñuy nuyu. nee na ñuy nuyu. Idrissa. Idrissa. di ko dalal jàmm. nee na di ko dalal jàmm. di ko xamal nee na ca di ko xamal ni. ñetti kilifteef yii ma lim. nee na ñetti kilifteef yii ma yi lim. Hmm, benn bu ci ne. nee na benn bu ci nekk. Hmm, am na nu koy xoole nee na am na nu ñu koy xoole am na nu koy jàppe nee na am na nu ñu koy jàppe ku ñu jàppal sunu kilifa nag. nee na ku ñu jàppal sunu kilifa nag. ak ku kilifa yëg. nee na ak ku sunu kilifa yëg. ak ku yëg sunu nee na ak ku yëg sunu kilifa. duñ mën a def. nee na duñu mën a def. ludul nee na ludul. ka mu yëg nee na ka mu ñu yëg ko. ku ko yëg ñu yëg la. nee na ku ko yëg ñu yëg la. ku yëg nee na ku yëg Serigne Modou. ci kër nee na ci kër Serigne Abdou Khoudous. ñu yëg la nee na ñu yëg la. ku yëg Serigne nee na ku yëg sëriñ Abbas. ci kër borom nee na ci kër borom daaru ñu yëg la ku yëg sëriñ Muntaxa nee na ku yëg sëriñ Muntaxa ci yoonu murit nee ci yoonu murit ñu yëg la noonu lañ noonu lañ ko gëmee nee na noonu lañu ko gëmee noonu lañ ko jàppe nee na noonu lañ ko jàppe yow nag nee na yow nag Idrissa li nga xam ne nee na li nga xam ni ñu baree nee na ñu ñu baree baree bari dañuy dañuy mel ne ñu nee na dañuy mel ni ñu siis gëm Serigne Touba. nee na ci gëm Serigne Touba. ak ak ak topp ci ginnaaw sëriñ Touba. nee na ak topp ci ginnaaw Serigne Touba. ba tax na. nee na ba tax na. kuñ ne murit la rek. nee na kuñ ne murit la rek. ñu ne déedéet ndax nangam. nee na ñu ne déedéet ndax nangam. waaye jëf ji moo koy wane. nee na waaye jëf ji moo koy wane. seedes seedes jëf. nee na seedes jëf. dafa gën a wóor. nee na dafa gën a wóor. seedes wax. nee na seedes wax. Serigne Galas Kaltoum. nee na Serigne Galas Kaltoum. nee na maamam nee na sëriñ faa hmm. la mu doon wax ci ci borom daaru nee na la mu doon wax ci borom daaru keroog bi sëriñ Touba di xëyee Mbacke Bari nee na keroog bi sëriñ Touba di xëyee Mbacke Bari bàyyi leen ak borom daaru nee na bàyyi leen ak borom daaru dénkaane ba nga xam ne moom la moom la nee na dénk fi mu bàyyi ko nee na fi mu bàyyi ko. ci yeneen tarixa nekkoon nee ci yeneen tarixa lañ mayuk sunu borom nee na waaye mayuk sunu borom la am. tibb ci mbooloo yooyu nee na tibb ci mbooloo yooyu. bañ koy gam-gamle nee na bañ koy gam-gamle. kon kay mujjee mujj gee dugg. nee na kon kay mujj gee dugg. ak jiitu gi ak jiitu gi. ak jiitu gi. amu ci solo nee na amu ci solo. am na am na am na koo xam ne. nee na am na koo xam ni. Euh, ku yàlla mas a jox daraja la ci ci ci ci réew mi. nee na ku yàlla yàlla mas a jox daraja ci réew mi. dafa ñëw ci sëriñ Abdoulahat. nee na dafa ñëw ci sëriñ Abdoulahat. kilifa yu bari teewee ko. nee na kilifa yu bari teewee ko. mi ñu defee ne day day wax soxla ñu bëgg koo may. nee nañ mu defee ni day wax soxla ñu bëgg koo may. mu bu ma kenn may. nee na mu ne bu ma kenn may. li may wax bëgg naa ñëpp dégg. nee na mu ne ko li may wax bëgg naa ñëpp dégg ko. bari na ministère yoo xam ne. nee na bari na ministère yoo xam ni. doon naa ko ci réew mi. doon naa ko ci réew mi. léegi nag léegi nag. menn mbir rek laa dese. nee na menn mbir dong laa dese. mooy ñuy nee na mooy ñuy lim. mbooloom Serigne Touba mbooloom Serigne Touba. boole ma ci nee na boole ma ci. nee na boobu bëgg des bëgg bëgg rek laa dese. nee na waaye dara ji àddina ju nekk am naa ko. nee na ca su ma tuddoon turam da ko xam. nee na loolu nag. nee na yàlla moo koy jagleel nit. Eh, eh, nee na damaa toog ci kanam Serigne Saliou. radiyallahu taala anhu. Eh, nee na Serigne Cheikh Khady ma. nee na Serigne Cheikh Khady ni ma. dama bëggoon ñu teela xëy siyaare ji sëriñ Saliou nee na jàpp naa ne jataay ba euh, nee na Cheikh Béthio Thioune nee na ak Landing Savané nee na ak sëriñ Cheikh Khady nee na ak man mii nee na jàpp naa ni euh, nee na ñoo bokkoon jataay bi ak sëriñ Saliou nee na muy xelli café di ñu jox